kenn duñ ko kafe parce que coupe du monde am na fi ba sonn ak coupe d'Afrique kenn mosuñu dégg ñu wax ni dañu koy def ci télé parce que am nañu ci droit suñu ko waxee c'est parce que fóor la teg ci ay kayitu ñu bind suñu ak ay kilifa waaw. koy jaayee du FIFA. yéen FIFA ngeen jënd non non une société sud-africaine bu de euh, Econet moom moom moom droit yi euh, en Afrique donc moom dafa am benn société bu muy liggéey bu tudd Crazy Free Sport. Nous ñun signé le signer contrat avec nous pour jënd droit droits nous avons signé l'autorisation autorisation FIFA pour le deuxième diffuseur de la coupe du monde au Sénégal étant entendu que euh, RTS est le premier diffuseur de la coupe du monde donc nous on est allé négocier pour jënd les droits si Econet négocier avec la FIFA pour nous autoriser nous nous être le deuxième diffuseur de la coupe du monde donc comme que les sud-africains à une société bu QSI Free Sport nous un partenariat avec nous créer une société de de QSI Free Sport Sénégal Nous l'une link est autorisé Futur à travers l'Obs TV et la télévision Futur Média nous avons donné les droits de la Côte du Monde pour nous le c'est aussi simple que ça. Oui, euh, euh, documents c'est xel mu ngi dem tribunal su waxtu tribunal nañu yóbbu seen ay kayit ñun suñuy kilifa suñu ay kayit fu mais li dinañu def coupe du monde bi ci télévision futur Médias ba mu jeex te kenn du ko parce que dañu ko teg fu euh, façon de faire parce que aussi euh, da ngay dox donc nous, on est une jeune télé, on va essayer d'amener de, nouvelles choses, une nouvelle façon de faire boo xam ni sénégalais bi dina si gis boppam sénégalais bi nag man su ma koy wax dafay door si jaaykatu café Touba bi jaaykatu tu caaf bi jëm ci kaw parce que ni ci suuf ñoo gën a bëri élite bi donc il faut que fi loo xam ne ñi ci suuf dañ ci gis seen bopp bu ñu gisee seen bopp forcément dafay nekk jàngoro buy wàlle dafay wàll ni ci kaw donc ci l'as la ñu ne am nañu ay affaires yu ñu teg yoo koy nas nous avons ko développé nous avons fini, mais nous avons une réunion entre nos rédactions avons un plan programme nous avons exécuter donc les gens verront au fur et à mesure que avancer dinañ moi la RTS le je comprends exactement ce qu'ils font c'est la la politique de la terre brûlée parce que Futur Média médias aura boo Si ni suñu nee de monde forcément les annonceurs vont venir vers le groupe donc c'est de bonne guerre que nous devons faire un peu ce bruit qu'il faut pour déstabiliser wala annonceurs mais nous on est serein on est tranquille am ko ay kilifa def nañu def job tranquillement té xex du am pot euh, match euh, le 31 le euh, match amical Sénégal Luxembourg TFM am man mais dama bëgg xam RTS fan télévision jënd en exclusivité les droits d'un match amical de l'équipe nationale du Sénégal wala bok équipe nationale Sénégal bi RTS moko ko parce que ci li li ñu xam comme information match amical bi c'est ça a été réglé sur le plan diplomatique ci visitu duc Luxembourg bi ci la ko signé entre ñom ñaari kilifa yi duc bobu ak njiitu réew mi Luxembourg mo invité Sénégal ci Luxembourg mo organiser match am wut match maker jox kaafe fa ni ko organisé ma ñu dem séti match maker ni ko jaay ñu droit en exclusivité ñu tek ko suñu télé koku nit nangam gem may fay ñu waxale ba d'accord ñu bind signé ñu bind signé ñu tek suñu bande annonce mu yéne ñu signal pour ñu def match bi légui au nom de quoi ñu dem jëndi ay droit ñu ni ñoom waaye tees mi ni ñu ñu def match bobu wala ñom ñu ñoom équipe nationale bi fay fekk ni bobu fédération sénégalaise de football moy organiser match amicalam wut match makeram ni ko demal nga liggéey ak RTS parce que la fédération sénégalaise de football fay liggéey ak la RTS si une compétition ça se comprend mais dit la fédération n'est pas organisatrice de ce match donc la fédération n'a pas le droit d'imposer au matchmaker la télévision les jaay droit parce que le matchmaker c'est un homme d'affaires il a un produit pour les jaay Donc au plus au plus au plus au plus offrant il faudrait que nous aussi qu'il soit fair play Donc nañu faire un match rudier. Que nous pouvons buuxantool ak même si jëlee image faire ça, je journal parle sax ñu ne tu n'as pas ce droit on reconnaît ça tey aussi on a été les premiers sur cette affaire-là, il faut qu'ils acceptent de perdre. Sur le on est assez grand pour donner le signal du match amical, que s'ils veulent, qu'ils mettent ça gratuitement. Ce n'est pas un problème. Parce que on parle de l'équipe nationale du Sénégal. On va en compétition. Réunis, nous sommes là, bolo, autour de l'équipe nationale. Pas à Hiro, à Kingayo. Nous avons beaucoup de monde qui Quand tu n'es que l'intuition, c'est copar. Si nous avons bien de nous, de copar. Tu es à de kon ku ne nga tok ci sa bureau nga liggéey ci sa liggéey calmement ñu bàyyi ciow li parce que ciow xiram na yow du dik dara te ñoom ci luñu ñu ñoom suñu kilifa luñu ñu mo moo gën a jinn fukki yoon ñoom luñu japp parce que yusnu aussi du caaxaan kat waaw parce que tam xam nga RTS dañu yag am monopole ñoom rek ñoo nekkon fi am monopole en affaire yi donc suñu gisee benen groupe bu mag pour ñoo kasse monopole bobu non buñ ko nangu non facilement bo xolé au début ci lamb bi bii des ñëwee pour jël làmb ji amoon na ay tiraillement boo xoolee bi te te ñëwee pour jël benn partie làmb ji ci des amoon na ay ma sénégalais moo tàmm di aaci moom mbir mais il faut que léegi ñu màgg te di tàmm di bokk yëf yi parce que adduna moo demee noonu léegi monde bi léegi c'est un monde de business ay affaire la donc il faut ñu nangu di partager di link parce que li xew Sénégal xew na ci yeneen réew te coow li am fii amul foofu kon lu tax di am ci yeneen réew mu jur jàmm ñu mën a xew mu jur coow coow loo xam ni Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.